jàngoon nañ idgaamul mislay ni ñaari baat yoo xam ne ñoo bokk ñaari xaraf yoo xam ne benn rek kañ lañ leen war a idgaam ak kañ lañ leen war a ñàkk idgaam tey nag mu jàngale idgaamul mutaqaaribayni ñaari xaraf yu jege jege gi benn mën nañoo jege ci génn waay fay xaraf yi di génnee jege wala boog ñu jege ci ay melo maanaam melo xaraf yi jege su ko defee loolu danay war a idgaam ko balaa mën a jàngal nag nañu lay aju ci wàllu idgaam géeg ndax ñaari xaraf jege mu jàngal lan mooy génn waaye xaraf yi pour nga mën a xam xaraf yi jege génn waaye ak yu xaraf yi jege wut jàngale lan mooy sifaatu xaraf sifaatu xuruf melo xaraf yi nga xam mhm. من حيث أن التقارب بغا خمينا جيجي ينقسم دنا سيدوكو إلى تقارب جيم جيجي في المخرج تيجنوا وتقارب من نانيك جيجي في صفة مرو كون لازم ورنا أن نبين نلالل أولا تنجل بين مخارج الحروف جنوا يحرفي وصفاتها أكسين مرو ليكون غير منك التالب كيسا قم قم على بصير تنجل لولير على بصير تنجل قم قم مقم jege gi ñaari xaraf yi nuñ jegee hmm. fa naqul ñu am maxaarijul xuruuf génn waaye xaraf yi arbaata asraf ko ñeent la taqriban ci nattale hmm. hmm? fukki ñeent la fukki barab ak ñeent lay xaraf yi di génne am na yoo xam ne ci mujj ak purax ga lay génne am yoo xam ne ci digg purax ga am yoo xam ne ci cet purax ga kon purax xam ne ñetti génn waaye am boo xam ne ci mujjëg làmmañ ko am digg làmmañ ba ca kaw tànqam ko euh, ak la ko faree kaw ci tànqam kaw ak loo xam ne ci ñaari wàll làmmañ lay génne jëm ci déggit ya ak liy génnee ci cet làmmañ ba hmm? yooyu am na am luy génnee xay show mooy mujjëg bakkan ba ba mu jeex yooyu danañ ko jàng daal fukki génn waaye ak ñeent aqsal xalqi mu jëg purax gali alif ñeel na alif wal hamza ak haa ak haa mm-hmm. alif nag na mu ci xëccaan lañ ca na mu mm-hmm. mooy waaw moom daf ci na mu sax hamza ak haa amma alif wala maa ngi leen wax ne moom ci jëwfu bi lay génne moom booy wut jëwfu ci génn waaye jëwfu mooy biir gémmeñ gi alif xëccaan baa xam nga koo génne wu ci porox na nga ci xëccaan gi rek jëwfu na na muñ ci biir biir bi eeru gémmeñ gi rek biir gémmeñ gi moom da ko boole ci génne ci mujj ak porox gi hamza ci mujj ak porox lay génne ah ak haa yooyu ci mujj ak porox gi lay génne alif hamza ak ñett yooyu la ci def waaye nag lañ daan jàng ci tajwid mooy hamza ak ha ñooy génne ci mujj ak porax ga alif ci biir gémmiñ gi lay génne loolu mu xarfu xëccaan yi alifu xëccaan waaw xëccaan yaaw xëccaan ñoom ci jaww fi bi la ñuy génne maanaam biit gémmiñ gi baa bii bu amul génn waaye gu ràññeekul mooy biir gémmiñ gi ووسطه ديغ فرغ للحاين الحاء والعين اغاين الحاء اك العين تي ديغ فرغ دي غير المهم لتن ينال وادناه تشت فرغ للخاين الخاء والغين اغين المعجمتين ام نيار الخاء الغين تشت فرغ دي غين هم كون مو ديغ الف همزه ها ديغ فرغ xaa u ak al aynu cat purax ga al xaa u ak al xaynu yi mooy génn waaye purax hmm? ñëw ci génn waaye génn waaye làmmañ mën naa am cat làmmañ digg làmmañ mën naa am kon mujj ak ga digg làmmañ ak cat bu ak wetu làmmañ yooyu na génn wàq sa lisaani ca mujj ak làmmañ ba maamaa fooq wa ànd la faree kaw làmmañ ba mi nga xam ne ci tànk tàq ma maanaam làmmañ bi dafay xaw a jëm ca taqam kaw ma alqoofu làmmañ bi boo xoolee foofu day jug jëm ci kaw taq ak kaafu qoo kaa kaa xaaf gi nag mooy gën a jug qaaf ak kaaf ak ak xaraf boo bëggee xam fu muy gën a dëgg-dëgg ko ak la ca mujjëg làmmañ wala génne waaye nag làmmañ dafay xaw a jug jëm ca tàqam kawam foofu xoof ak kaaf ñoo fay génn moo tax dañoo niroo sax am na yoo xam ne dañuy jaxase ñaari baat yi xoof buñ ko bu baax tuddee ko kaaf parce que dañoo jege wooy ci max rek moo tax dañ luk kum am na xaaf ak kaaf mais dañoo jege ci max rek ñoom ñaar ñëpp ci mujjëg làmmañ bi la ñuy génne ci cat làmmañ ba moo waral ñu def la idgaam foofu li nga foofu jege ko moom gis foofu wasatu digg lamañ ba maa maa fawqahu ànd la ci la nekk ci kaw làmmañ bi mais xanaa ki ca tàqam kaw ma maanaam digg làmmañ bi ak tàqam kaw ma ñaari xaraf muy al jiimu wa shiin aj jiim ja sha ci digg làmmañ bi lay génne waaye dama xam làmmañ bi dafay xaw a jug dem ci tàqam kaw ak aljiim maanaam juróomi maxraj mu jëg porox ga digg porox ga cet porox ga cet lam li mu jëg làmmañ ba digg làmmañ juróom benn mooy wa ixdaa xaafata yi benn si ñaari wàll làmmañ yi maamaa lii ànd ak la ko méng min adra ci ci déggit yi déggit fare kaw li doot yi doot moo fi génn maanaam wàll làmmañ bi lay génnee benn mën naa génne si ndeyjoor wala ci càmmoñ jëm ca déggati boo daa bi day xaw a jukkee day xaw ca day xaw a jukk ci kaw daal xaw a si worofu mot baqee la wook danañ ko jàng doo déggit ba day jëm xaw a jëm dégg wala dooliin doo mën naa si ak càmmoñ bi wet laa ñu ngi jël mu xaw a jëm ci dégg yi dégg yi muy nekk si wet gu noonu bo wala booliin benn araf fay génne mooy boot boo wa maa duuna taraf ak la jege cat lamañ ba ilaa muntahaw ba ci cat lamañ ba ba lamañ bi jeex maama fooqahu ànd ak la faree kaw me xanaa ki si tàqam kaw ma di daanaka fi daab di génne dafa jege cat làmmiñ la xam nga doot ci cat làmmiñ lay génne waaye ci wet ga parce que ci wet làmmiñ lay génne mais daanaka si cat ga rek génne laam àll xoolee ci daanaka mu ngay wax ne mu ak làmmiñ gi lay génne ba làmmiñ bi jeex laam àll yow moom moom xaraf bu yomb a génne la cat làmmiñ bi lay génne fa maxraju laam génn waaye laam qaribun lu jege la min ad-daad ci daat waaye moom laam awsa'ul xuruuf yi moo gën a waaye moom moom moom boo xoolee waaye bu yaatu daanaka moom laamañ bi yëpp mu jël laamañ bi yëpp ci la bokk raayit ci cat laamañ bi lay génn wala raa yi ñeel na raa mel lisaani ci cat laamañ boobu maa fokk ak la fare kaw raa raar e fere ka wa maa ilihima mooy laam ak daat fay moom axaraju moo gën a xat ñu ne laam yi ci génn waaye laam laam moo gën a yaatu raa moom ci cat làmmañ bi la moom it kon wax na cat làmmañ wax na ci laam ak raa wali nuuni ñeel na nuun maa yi lii la mel na ko mu bakkan ba waaye moom aqsar an fi mu mujj bakkan ko nuun am na day am it xun na moo tax moom ci mu ak bakkan ba lay génne boo bëggee xam rek fàttal sa bakkan bi nga bëgg a tudd an doo ko mën ar ar rek doo mën a nekk ci boo fàttee bakkan bi parce que génn waaye am day laal bakkan mm-hmm. waaye boo fàttee bakkan bakkan bi doo ko mën a tudd mm-hmm. parce que waxul na gi moo du ñëw dégg nga taa too i ñeel na daali ak daal al muhammadati neenal taa ak taa al musannaat ga ñaari tomb tarafu ca cat lamañ bi lay génne maa usuli sanaayal ulia ànd ak cosaanu bañu kaw ya nekkul si cat bañu kaw de fii déedéet fële bañu kaw yi sax fa mu ngi dëggal si bi tudde fi ñu koo mm-hmm. ak daal ak taa ci cat ba kaw yi waxuma ci euh, ci kii bi kaw yi fa sax fa sës mm-hmm. xaw a jege tàq ma foofu la foofu la too ak daal ak taa di génne ñetti xaraf yooyu way yet sanaa yaawul yaa mooy alasnaanu bëñ yi al mutaqadima yu faree kanam mm-hmm. sintaani ñaari bëñ yi min ala ci kaw lay nekk wa sintaani ñaari bëñ mi asfal suuf lu mooy sanaayaay mooy ñaari bëñ yi faree kanam ñaari bëñ ci kaw ñaari bëñ ci suuf kon sanaayaay ñeenti bëñ la nekku yeneen bëñ yi ko seqale ñaari bëñ yi nga xam ne moo nekk ci kanam nit ki yooyu mooy sanaayaa léegi nag ca kawam ci cosaanam fa saxee xam nga fu may wax noonu ci biir foofu ngay dugal cet lamañ bi tudd fa mm, xaraf yi mooy too ak daal ak taa bokkuñ si fa xam nga araf mën nañoo bokk fu ñuy génne te bokkuñ si fa comme ni nga xam nit mën nañoo bokk ndey ak baay bokkuñ melokaan la leen teqale kii dafa xees kii dafa ñuul kii dafa njool kii dafa gàtt kii kanam gi nii a bindoo kii kanam gi nii la bindoo kii dafa naqari deret ki neex deret mën nañoo niroo lépp mais kii naqari deret kii neex deret kii sew baat ki xaw a dijji baat xam nga bokkuñ sifa mais ñoo bokk fu ñu jugee xaraf yi tamit noonu la mën nañoo bañ a bokk sifa fekk ñoo bokk benn maxraj mais ton bi araf bi di joxe boo koy tudd loolu mooy sifaam xam araf bu nekk boo ko tuddee rek dana am son bu melo wuñ ci gis loolu araf bi yore melokaan boobu mooy sifa bi mën nañ ko bañ a bokkale wa tarafu cat nu mu tuddati làmmañ ba maa sanaaya ànd ak bëñ ja li soit di ñeel na wa zaay ak zaay wa siin ak siin soit ak zaay ak siin dañu am dañu si am wuute ñene ak daal ak taala bëñu ga fa lay gënee soit ak zaay ak siin da jël salaam yi teg ko si cet bëñi suuf yi comme ni nga ko tegoon ci kaw bëñi kaw yi sanaa yaa ñaari bëñ yi faree suuf ci suufam ko foofu ngay teg sa la cellaawe mooy génnee fi soot ak zaay ak siin ñu ne déedéet diggante ñaari bëñ la soot soot soot maanaam bëñ suuf ba si cet daanaka si kaw la soot ak zaay ak siin ak siin moom daanaka si bëñu kaw gi cet gi ñu ne si suuf ka la kon soot ak zaay ak siin da jël sa cet làmmañ teg ko sax cosaanu bañ yu suuf yi ñaari bañ fare kanam mm-hmm. foofu la ñaari xaraf yooyu di génne dégg nga mm-hmm. wa tarafu cet làmmañ kon ni xaraf yëpp ci cet làmmañ lay génne mm-hmm. cet làmmañ moo gën a bëri maxraj waaye cet làmmañ bi tam nga teg ci cosaanu bañ yu kaw yi cet bi nga teg ko ci cosaanu bañ yu suuf ci kaw bañ yu kaw yi suuf yi kon ci kawam moo sama ma sanaya ànd ak bëñ yi daal day laal bëñ yi daal wa tarafu cet la mañ tarafi sanaya ànd ak cetu bëñi kawe la waroon na ko wax nag li va iñel na va sa cet la mi ngi jël teg ci kaw bëñi kaw cet ga ne ko ci cosaan la de va ak zaal ak sa sa al muthallata ba am ñett tomb cet la mi ngay teg ci cew cet ñaari bëñi kaw yi tudd xaraf yi ak zaal saa noonu la ki nga xam noonu la cat laa moom day nekk ci cat ba ñu kawe foofu la ñuy génne ñoom ñetti xaraf yi kon làmmañ ba jeex na mu ñëw ci tuñ bi làmmañ bi kon ñaata génn waaye laam mu jég làmmañ digg làmmañ wetu làmmañ cat ga ba làmmañ bi jeex ci cat ga cati cat ga dégg nga nuun cet lamañ ba ak ak ak ga ak cet lamañ ba ak cosaanu ba ñuy kawee cet lamañ ba ak ba ñuy suufee wala cosaanu ba ñuy suufee cet làmbañ ba ak cetu ba ñu kawee yaakaar naa juróom-ñeenti génn waaye am na ko hmm? nga dem ci purax ka ñetti génn waayam mooy fukk ak ñaar mu des ñaari génn waay mooy tuñi ñaari génn waay tuñe ko moom wa baatinu shafati sufla biit tuñu suuf ga maa tarafi sanaayil ulya ànd ak cat bañ kawe lil faa faa biit tuñu suuf ga biit ak cat bañ kaw gi mu ngi tuddee faa faa af xola af sa tuñu suuf ba biir ga dafay tegu ci kaw ba ñu kaw af du fii bitig nii af kon baatu faa ca tuñ walay génnee waaye biir tuñ suuf ba mooy tegu ci ba ñu kaw ya maaram nag neex génn la sax mooy boo jàngun ma xaj bi tamit talqin mooy li gën a gaaw ci maxaarajul xuruf yi muy ustaas bi sala ko nga di ko jàngee ni ko ustaas bi jàngee da nga gis da koy génne facilement bu ma benn diggante ñaari tuñ yi nag diggante ñaari tuñ yi fooy génnee baa foofu ba ñu amul ci ab baa tuñ yi lay dëpp wal miim diggante ñaari tuñ la wal waaw diggante ñaari tuñ la mais tuñ dafa mel lu jug noonu baa ak miim ak waaw ñoom ci diggante ñaari tuñ lañuy la génne kon chafateen yi ñaari génn waay la am mooy tuñu suuf ba biit ga ak cet ba kaw ka kooku am na foofu benn génn waay mooy fa diggante ñaari tuñ ñetti xaraf fay génne ba miim waaw lii ñooy maxaariju xuruf yi mu ne fukk ñeent la am na cet purax alif hamza dégg purax xaa ak ayin ca maa ngi wax gën saa sori purax alif hamza digg purax xaa ak ayin la gën a jege ci purax gi xaa ak ayin fa gën a sori ci làmmañ xaaf ak kaaf waaye nag day xaw a dem ci tàqam kaw digg làmmañ jiim ak shiin day xaw a dem ci tàqam kaw ñaari wetu làmmañ yi boo ko ci baax na mooy boot waaye day xaw a dem ci dégit dégit yi fare kaw boot boor dégg nga hmm. cet laam la jege laam tuuti mooy raa nuun cet làmmañ ak ci mujjëg porax ka ak daal ak taa yooyu cet làmmañ bi ànd ak cosaanu bëñ yi kaw ya dégg ñaari bëñ fare ko ñaari bëñ nekk ci kanam soot ak zaay ak siin ceet làmmañ ak bañu suuf ga rek mën naa nekk suuf ga mën naa nekk si bañu suuf rek voo ak zaal ak saa cet làmmañ bi ànd ak cet bañu kawe biituñu suuf bi ak cet bañu kawe faa moo fay génne diggante ñaari tuñu baa ak miim ak waaw moo fay génne li mbaxaaruñu xorof yi beneen yoon dañu jàng sifaatul xorof yi yàgg naa arab yëpp ñëw na arab yëpp ñëw na de yëpp ànd na ko ñetti xaraf plus ñaar muy juróom ñaar muy juróom si ñaar muy juróom-ñeent tegaat si ñaar muy fukk ak benn nga teg si benn muy fukk ñaar nga tegaat si laam muy fukk ak ñett alaa fukk ak ñeent juróom nga tegaat si ñett mooy fukk ak juróom ñett nga tegaat ci ñett muy ñaar fukk ak benn nga tegaat ci ñett mu ñaar fukk ak ñeent nga tegaat ci benn mu ñaar fukk ak juróom nga tegaat ci ñett ñaar fukk ak juróom ñett mooy vingt-huit xaraf yëpp bu nekk séddale na ko fa muy génne lii daañ koy jàng si tajwid waaye xam nga sarfu day wax ci wàllu idgham dugalante xaraf te ñaari araf yu jege dana tax ñu dugalante moo tax il faut sarf daf lay jàngal maxaariju xuruf tajwid sax léeg-léeg nga jàng si sifaatu xuruf daf lay wóor li amul rapport ak alquran waaye lii ci lu waar bee lay dellu wàllu ci la am solo dañuy jàngal yenn sifaatu xuruf yoo xam ne daanaka doo gis jeexitam daal ci booy jàng alquran waaye booy wax ci wàllu sarf ci ngay gis jeexitam moo tax sifaatu xuruf ak maxaariju xuruf yi seen cosaan ci langue arab la. alquran li wàcc ci langue arab moo tax ñi koy jàngalaale ci wàllu tajwid in uridu al-islam mastata'tu ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh